ñu bokk li nga xamante ne amul njëg muy bokk Sénégal bi nga xamante ne taar teraanga jàmm rek lañ ko xamee lii di jàmm di jàppalante di nawlante mooy li doon suñu kàttan suñu alal goo xamante ne mënuñu ko àpp ci njëg moo tax may sargal askanu Sénégal mi nga xamante ne askanu jàmm la askanu teraanga la waaye askan gu fonk démocratie la at yi ñu weesu ak nu mu metti métti askan gi wane na mat wane na tamit bëgg réew mi ba tax na lëpp lu mën a xew am nañu élection boo xam ne ci bu mu jotee génn na ci jàmm voté ci jàmm tànn président bi nga xamante ne moom la fi bëggoon teg lii ngeen seetlu nag ci at yi fan yi weesu ci weer yi weesu ci jàmm ndax ñëpp gisoon nañ ne dëkk bi meloon xaajaloo bi féewaloo bi ba ca biir njaboot yi du lenn lu dul méritu askanu Sénégal ak ni nga xamante ne suñu démocratie suñu institution ndëgërlaay bi nga xamante ne askan gi rek ci la weeru ni ngeen ma wooloo nag ba teg ma ci kaw réew mi ma waat ne ci taxaw seen iite rek lay nekke te duma ci xool xaj ak seen duma ci am xaj ak seen ndax ka ñi ma woteel ak ñi ma bañ a watal yépp maay président ñëpp kon ñëpp laa war a boole njaboote engagement boobu ma jël nag ba mu tax ma génn ci politique ci Pastef ci ni ma nekkee woon seen secrétaire général waaye nekk fa simple militant pour mën a gën a nekk bañ a péete mën a njaboote ñëpp moo tax ma def ko te dinaa ci def sama kéemtalaay kattan ngir njëriñu Sénégal jafe-jafe nag bëri waaye gouvernement bi xar na ci tànk tubéyam ci sama njiit ak njiital président ki Ousmane Sonko mi nga xamante ne mooy premier ministre nañu moytu dugg ci li nga xamante ne def ñuy féewale day gën a andi jeeyu ci réew mi nañu moytu lu mel noonu ci biir booloo ci biir manko ci biir déggoo la mën a songanteeg lépp loo xamante ne jafe-jafe la suñu kanam di suñu kanamu njaboot ci kanamu Sénégal bi ñu bokk ñu war ci ànd ak nag nawante ànd ceeg solidarité ndax loolu moo ñuy kattanal ci lépp loo xamante ne soobu nañ ci ñu ngi dem ci campagne électoral ci élection législative yi may woo sénégalais yépp waaye woo rawatina ñi nga xamante ne ñooy acteur politiques yi ak fu ñu mën di nañu moytu wax gu ñaaw ji nañu moytu discours yi nga xamante ne dafa ànd ak violence nañu moytu tamit teg ay jéego yoo xamante ne dafay fësal violence seetlu naa ci fan yi ñu génn commencé naa dégg wax joo xamante ne dëgër na ëpp na sax ci ci nuñ ko mën a nattee bu ñu gisee fu ñu jóge ak fu ñu mën a yóbbuwaat am na ci sax ñoo xamante ne ñu ngi commencé di bax di jax-jaxal loo xamante ne ab waasu mbirum waasu la war mbirum gëm-gëm ci biir ci télé yi ci émission yi ci espace médiatique yi waaye tamit ci réseaux sociaux yi sama gëm-gëm du noonu la ñu war a régler suñu féewaloo démocratie dafa ànd ak ku nekk wax sa gëm-gëm nangul keneen point de vue am te mu bañ a àndi noonu élection yi ñuy dem élection yu am solo la ci tànneef war a doon sax feet ci démocratie waaye warul doon loo xamante ne dafay indi féewaloo suñu diggante kon maa ngi woo acteur politique yi ñu wane responsabilité ak matt te tamit yem yem ci ci ci ci ci propos yi ñuy wax maanaam ci kàddu yi ñu bañ ko ñaawal nañu rafetal lépp dañuy dem waxtaan ak askan wi bu ñu paree askan wi dina dem ci jàmm nu mu ko defee woon 24 mars te mu gënoon metti tanaat koo xamante ne moom ñoo ñoo xamante ne ñoom la bëgg ñu teewal leen assemblée national suñu responsabilité la nag ñun ñëpp citoyen acteur politique ñu sàmm li nga xamante ne amuñu lenn lu ko gën a am solo muy suñu démocratie suñu stabilité jafe-jafe yi bëri na loolu dëgg la waaye bu ñu booloo mànkoo dinañ gis ne que Sénégal mën na génn ci jafe-jafe yu mu nekk dem ci euh, eeru naataange bu ngeen seetloo lu ñu commencé teg lu bëri xëy na communication bi mën na am mu des waaye am na lu bëri lu ñu fànq ci lu yàqu-yàqu ci loo xamante ne ñu ñu tegoon la ba pare wala lu ñu doon waaja teg maa ngi ñaan nag sénégalais yépp di ñaanal Sénégal di ñaan tamit acteurs politiques yi ñu dox ci jàmm ndax ñu mën a am campagne électorale ci jàmm waaye li ma leen mën a biral mooy élection législative yi moom dina leer ba buñ ci jógee ku ñu daan di nga xam ne yow lañu daan nga war a mën a am matug félicité koo xamante ni ñoo moo la daan ñiy fekkante assemblée nationale teewal Sénégal ci jàmm maa ngi leen di bu baax di leen gërëm salaamaaleykum. Diobass TV xibaar yu di leen ci Diobass TV xibaar yu wér te